رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان رمضان رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك beneen tomb bi ci des mooy sëñ Tuubaa ak weeru koor laytaka dawman qarib xam nga sëñ Tuubaa moom waxtoom yëpp jaamu yàlla la layaalihi asrarun wa ayaamu hudan wa awqaatuhu barrun wa anfaasuhu shukru waxtoom yëpp wa kasbuhu sarmadan tawxidu xaaliqihi wa mat muxtaari xayri bariyaati waxtu wu nekk mooy wéetal yàlla di ko jaamu ak tagg rasulullahi sallallahu alayhi mooy melow sëriñ Tuubaa loolu nag moo tax jëmmi weeru koor nag bu masaa ñëw dañuy wax ne ñaari weer yi la sëñ bi daan gën a belli muy weeru koor ak weeru gàmm nga xam ne weeru koor bu masaa ñëw bu dee ci biir réew mi la bi mu fi nekk day tatagal weer bi di ko dalal defaraat kees yi duy ndaa yi defar ëtt yi te moom sax bu boobaa mën naa bañ a jëfandikoo la waaye day fonk gan gi mu fonk ba mu nekkee ci bitim réew it noonu la mel gis nga bi muy taalif xëy si dëgg yaa xayra dayfi ci 1315 booba weer yi bi mu ko séntoo ba gis ko xam ne lii weeru koor gi la nee na moom nee na yàllaa ko doon xamal weer yi wolof yi ndax ba mu fa demee gisu fa koy jaa xam yàlla ba di ko wut ci la jote ndigalul del woor nee na booba awma ndogu awma xëdd waaye sunu borom dane ma xobi garab yii da ngay seet yi ci lewet nga di ko dagg di suj sujjal mu ci ndox mi yàbbi garab mbay sëñ bi teewut ba muy def noonu it teewul day tatagal yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi Euh, nga xam ne kon weer wi ñëwal maa ngi lay yaatal maa ngi lay dalal maa ngi lay ubbil lépp ndax yow yaay weer wi nga xam ne da ngaa nekk muazzaman inda rabbin la sharika lahu wa inda ahli tuqa wal ilmi wa rushd weeru mag woo xam ne way xam-xam yi ak way ragal yàlla yi ak borom bi subhanahu wa taala xam nañ ne weer weeru mag nga u tedd nga ci sun borom subhanahu wa taala mu nekk weer woo xam ne it da ko fonkoon fonk goo xam ne ndax ngëneel yi yàlla dëxañ ci biir weeru koor nga xam ne waxtu wu nekk moom xam nga sëñ bi moom xàmmeewut laylatul xadr rek lu dul laylatul xadr benn naar da koy tagg ba yàgg mu ne ko yaqumu layaali raakian baxda laylihi fa kullu layaali indahu laylatul xadr sëñ Tuubaa moom bisam yëpp guddeem yëpp laylatul xadr la ndax taxawaay boobu la ci am waaye du tee bu weer bi masaa ñëw nag day gën a belli nga xam ne fi ne boo demee da ko wutal sax diiwaan boo xam ne ci fuyu daat yi la bokk nga xam ne da ko tuddee euh, euh, chahru ramadan nga xam ne da ngay gis xasida goo xam ne da koy tëddee chahru ramadana ak chahru ramadan kadalika kadalika chahru ramadan cheikhu ramadan bichri cheikhu ramadan lii nga xam ne egg na ci si day wax ne yàlla xëccal na ma maanaam rikki na weeru koor ubbil ma bunti àjjana jox ma ko ba ñuy tàbbi àjjana nga xam loolu ma ngi ko waxee ca goog jëm sës am na koo xam da ko wax xam da ko waxee masës nga xam ne benn bu ci nekk bu cay ñëw da lay wax la ko yàlla defal ci weeru koor nga xam ne egg na ci di wax ne jëmmi weeru koor ak weeru gàmmu ñoo dem ba ca yàlla seereel ko na ko Ahmadou Bamba ku la bëgg la nga xam ne nga xam egg na ci wax it ne weer wi ak alxuraan jël nañ samay jëf yéegal ko ci jëfi saxaaba ya ba léegi boole nañ ma ci asaabiqiin al awwaliin ya nga xam ne mooy ña jiitu te jëkk muy weeru koor mu nekkoon weer woo xam ne gis nga bu nu koy misaal du ko jàngal day wax ne weer wi xamal ne seeral na man sab xarit laa ci lu amul benn rax bu ëllëgee yomal xiyaamit bis ba nga xam ne njàqare laa tiitaange teew na fa xamal ne man ku la fonk laa xamal ne ab xarit laa la def ndax yow kat weeru yàlla wu tedd bi nga xam ne da nga ñu guddi gi gën yaa chihra rabbin karimin fii ka jaadalana bi laylatil xadri daatil fadli wa raxada yaa ngi ñu andil guddi gu gën te mooy guddik uh, laylatul xadri nga xam ne melo woowu la ciy jàngale waxtu wu nekk na koy waajale moom sëriñ bi nga xam ne ni mu fonke woon mboolem xibaadaat yi nga xam ne bu masaa di julli mbub moom koy waajale xeeñ nga muy xeeñ a gët bu weeru koor ñëwee it noonu la koy dalale gën a mën a bernde gën a mën a joxe ay xéewal gën a mën a yaatal waxtu wu nekk moom ci naafi la dëkk nga xam ne moom la ko bindkat boo wax rek uh, alaylu xaa'imu wannahaaru saaimu wa dikru daimu guddi fila bëccëg woor saxoo jàng alxuraan loolu rek moo nekk mbirum sëñ bi loolu moo taxoon nag bi masa am na kooram goo xam ne ci gabon wax naa la léegi ne la xobi garab la doon la doon doge am na fa koor goo xam ne seen saatu képp la sëñ bi yor moo dem ca jaba wecc ko ko jënd ko xaal kuppati ko di ci dog am na goo xam ne benn ñam la yor di ko ngarañ te teewul da koy woor da koy dalal weer wu gën a mat am na ci kori gu ko fekk gabon goo xam ndax juróom-ñetti at woor na ko gabon am na kori gu fekk gabon goo xam ne nee na bi mu koy wori ñëw na ba ci bayaal bi ñu war a jullee xam na ne kenn du ñëw waaye daa xool fi xool fi dundal sunna waaye nee na bi muy julli ay njegemaare ñëw ne ci wetam bu kàbbaree dañuy reetaan ba daanu ci suuf ngir di ko reetaan nee na bi mu noppee keroog amul muurum koor te bu ko amee it amul ku ko jox moo tax am na bis mu ñëw mu njaareem gii mu xëy benn bis di jàngaloo sëñ Mahmoud Fall xasida yaa xayra dayf nga xam ne sëñ Mahmoud daa jàng yaa xayra dayf ba daaneel mu ne ko iqra shaqiqatuha yaasal bu sharaati jàngal doomi ndey ja yaasal bu sharaat sëñ Mahmoud nee ma jàng yaasal bu sharaat ba yeggal sëñ bi daan na yaagu jëkk gi de bi ma koy teel dama séntu weeru koor gi yaagu mujj gi ma séntu weeru koor yi diggante yaari yaayi nag muy diggante yaa xayra dayf ak yaasal bu sharaat gisuma fi te gu ci cin ma laak di ko mos te teewul noon la doon rafetale ay melam ci diggante mag boroomam ba koor gi mat nga xam ne waxtu nekk noonu lay mel di di di di wooral waxtoom nga xam ne di ko wéetal waxtu nekk bu xëdd jotee du am lu muy xobi garab te day naafila nga xam ne li sëñ mu Ka ne bu ñuy maaj muy taxawal faratay boromam bu tubaab yi nekkee sax seen entraînement ci seen biir lay noddu ngir taxawal yàlla wéetal yàlla borom bi subhaanahu wa taala loolu kon buntu la ci boo xam ne it bi taxawoo na ko ci koor kon mu nekk lu mata fonk ndax koor euh, borom bi subhaanahu wa taala leen asaw mu lii wana ajisi bi maa moom koor te maa koy fay kon lu mat a màggal la lu mat a fonk la lu mat a wormaal la noonu la ko sëñ bi doon taxawee ramadan ya shahr al quran fika adhumu halawat al iman ramadan ramadan ramadan ya habib ramadan ramadan laytaka